comme je disais tout à l'heure un record du Sénégal parti pour être centenaire. Ah. Euh, en principe record bu ñu baat warul mën a yàgg. man euh, euh, jaaxle laa ci am la mesure où. Ah, ne warul mën a warul mën a yàgg parce que fii technique bi ko commencé parce que ñun bi may dem fii centre la daa daw fii waaw. léegi fii avec tartan bi ak dàll yi nga xamee ni yu woyof la Adidas ak moo de bañ def publicité mais que euh, d'abord lu koy indi bon ñu ñu bëri dañu xam final bi daw naa série quart de finale demi finale finale à chaque fois aussi tam bu ma arrivé damay xam avec euh, Mexico avec l'effet de l'altitude alors boobu ne nekk en 1968 alors anecdote pour anecdote ma bi ma jëkkee daw arrivé capitaine Sarr mu ngi ci dégg maa ngi ci fen mu def dafa fi ma xamee rek boo xaw a xamale ko tuuti rek mu def performance bi ma def def quarante cinq et quelques poussières ñu mu battre nga record d'Afrique ma ne ko bàyyi naa dootuma daw de mu ma daw Sénégal indi la fii ngay daw nga ne daw na daw Ah, non non bi ak ak voilà waaw parce que euh, en principe franchement man euh, xaw ma woon mais limites bu ma xamoon sama limite moom xëy na peut-être série quart de finale yëpp mun naa réserver wu. mais dama daan daw ba jeex. déedéet damay daw ba jeex chaque fois moo ñuy xëm bon boo ko waxee xale léegi dañ naan bon kii kii da doon xaru parce que xëm ne mën na ci arrivé ah. mën nga ñàkk sa bakkan ak lépp xam mbiru suñu borom la aussi tamit waaw récupération ak effet de l'altitude. booy arrivé. bon voilà doo calculer dara. man boobu pour man euh, comme euh, ñetti américain la ñoon ñaar ñi ku ci nekk raw la kenn ki euh, quart de finale kenn ki demi finale bon je me suis dit que au plus mal mun naa mun naa am médaille loolu lay xool sama bopp bon ñoom ils se sont réservés peut-être. yaa en courant seen série yi mu kenn xamul mais man euh, dama doon à cent pour cent aw ma woon benn retenu alors boobu benn sax am na ci demi-finale dañu ma doon yuuxu bu may naan ah, récupère récupère bon ñëw naa def performance à chaque fois mu doon daw rek dina doon baat record d'Afrique plus que may gën a dem di raw ba à la fin aussi tam ci la euh, amélioré waat record record record d'Afrique ba fekk benn Ouganda ci biir course bi mu ngi fi woon waaw ah, ñëpp ils les trois Américains pour euh, la petite histoire ah euh, américains yi dañ doon euh, xeex affaire nit ku ñuul Black Panther alors ba nga xam ni ñi ci gënoon gagné dañuy yëkki ko podium bi ta ay gants ganté ñuul ta tàllal seen loxo jëm kaw alors ci guddi gi ñu ba ni du ñu woon daw mooy trois heures avant la course alors kenn ci mono kii seen ancien coureur yi digal leen ka daw daw leen kii pour xeex la c'est pour que ñu montrer leen ah, euh, nit ku ñu lu woon a mel moo tax ñu dellu si daw sinon en principe bu ñu daw loon mun naa nekk champion olympique loolu la loolu la yàlla dogal ci préparation aussi tam am na ci solo bu baax a baax a baax a baax parce que man mii di wax ak yéen euh, dama amoon rage des dents avant may dem aux Jeux olympiques waaw bu nga xam ni pendant trois mois mais gis ko laa dul kii. bu ma revenir à la normale ma am li am si li ma gën a métti nag amoon naa bourse comme les tous les olympiens mais bi sama bañ yi commencé métti rek ñu nangu sama bourse. alors sama entraînement gis nga tout ce qui s'est passé ça m'a motivé comme loolu la léegi dem sama sëñ laay kattan waaw euh, bii bi ma commencé 400 mètres la alors dañ doon entraîné ba yàgg rek ñu jël ma ni ne fu nga def 400 mètres ma ne ah, mosuma ko raw de waaye de gis naa gars yi ni ñuy def alors léegi ñu dugal ma comme ñoom dañuy amoon habitude bu ñuy daw dañuy jëkkante place lañ doon def alors man ma tëb tukki ñu benn ancien dirigeant moom ma yàq ma ñëw nag fatigué trop ñëw ñu ne jonkan nii di respiré ñu naan waa waa ji raw na de waaye dee na de ma ne leen bu yóbboo waaw c'était ban kii la stade la fii. Euh, stade parce que foofu lañ doon entraîné. Euh, euh, c'est que je crois que beaucoup am nañu indépendance ah. parce que man dama doon dama doon football. waaw dama football ñu génn ñu vraiment nekkoon ailier boo xam ne nii gaaw naa trop. alors en quelque sorte pour rafetal ñu ne dàq man ci man dañ may dàq parce que man dama daan dem centre rek kenn du agsi parmi pour kii la ñi nga xam ni ñoom laa bokkal équipe. fii nag euh, jeu de l'amitié la 63 la woon alors euh, fii 4 fois 4 la woon comme 400 bi man maa ko rawoon jël médaille d'or 4 fois 4 bi léegi ñu ñu dem final laa di raw nii. allo euh, euh, Bernard Dibonda après moo nekkoon sama entraîneur bu mu nekkee entraîneur euh, Abdou Fall kii man la waaw quatrième bi nag dama douté parce que xamuloo ko xam amaan na suñu benn waay boo xam ni du vraiment dama fàtte trop mais ci équipe bi la bokkoon ko ki ñu doon mais jox médaille bi aussi tam demb Diop mooy ancien ministre jeunesse sport. kii c' est les Jeux de l' amitié en 1965 à Brazzaville. Euh, ma jëloon troisième lu ko waral mooy bi ñuy dem final foofu comme cendré woon dañuy labouré woon euh, corde à la corde là kuréel de cinq mille yi dix mille yi daw mu def ay kàmba yu kenn xamul kenn jotu ko raclé. ay 400 mètres plat bi. waaw 400 mètres plat bi waaw léegi mu doon final kii congolais bi moo nekk nii moo si poso waaw léegi benn euh, Kenya moo rawoon aussi j'ai oublié son nom mais benn Kenya la moo rawoon. kii itam mun naa ci nettali xise boo xamee ni. bi ma jëlee fii troisième ñii ma daaw ñii ma kii nii ah, raw nii ñoo defandoo relais quatre fois quatre bi ñu dem euh, départ. mooy bu sànq bi. waaw ma ñuy def quatre fois quatre bi ñuy dem départ man ma ma jox leen dix mètres ci la ñu ñoom euh, composition équipe bi fekk euh, dañu jëloon benn élément boo xam ne nii joxul satisfaction. yaa nekkoon premier relayeur. Euh, waaw nekkoon premier relayeur. deuxième relayeur mooy Mambay Ndiaye la woon. troisième relayeur euh, euh, Daniel Thiaw quatrième relayeur capitaine Mamadou Sarr waaw waaw parce que dañuy dindi woon ndem si yàlla si Daour Gueye parce que série qualifié nañu woon mais avec difficulté ñu xam ne bu ñu continuer ñu dañ ko mën a wutal certificat médical pour ñu wan dafa xaw a feebar <laughs> dem nañu wu ci officier sax boole ñu pour ñu disqualifié ñu mais yàlla def ci sutura daal pour ñu dem Abdou Seye moo doon suñu entraîneur waaw. ngeen def ko un relais de fou quoi. fou waaw macha allah ñu jël médaille d'or kii bi ñu jógee Mexico la. maa kër dem si yàlla si Mansour Dia ñu def triple saut longueur Senghor doon ñu décoré waaw ah, ci la ñu décoré chevalier dans l'ordre national alors am na sax bu yàggul kese boo xamul 2012 2013. ñu woowaat ma di ma décoré defaat la même chose ma ne def ngeen la même chose yéen ngeen ngi def lii de amoon naa ko ñun ma indi les preuves dañ leen indi les preuves bind leen lettre ba suñ suñu jooni tey ba léegi tontu wuñu. bi président Senghor moo moo doon décoré. Mhm. waaw. ci institut national du sport la. Mhm. bi ñuy def troisième degré. ay waaw yi euh, ci soixante et euh, plat. Mhm. final man maa maa rawoon. ok bon après ñu def euh, éliminatoire quatre quatre fois quatre. ñu jël premier Sénégal. raw raw fa Congo raw fa France. jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futurs euh, média mbokk yi ñu leen sant di leen gërëm gis ngeen léegi léegi ñu ngi doon seq waxtaan ak euh, Amadou Gakou Amadou Gakou nag ku ko xamul dégg nga turam ci Sénégal Amadou Gakou bu njëkkoon footballeur devenu par la suite athlète Amadou Gakou. recordman du Sénégal au 400 mètres plat record bi nag ma fi nekkee léegi yàgg na ëpp na juróom fukki at juróom fukk ak juróom record du Sénégal 400 mètres tëdd fi ba tey kenn battre gu ko mu nekk 45 01 ma ngi ko defee woon euh, ca Mexico ci atum 1968. ni ñu koy waxee rek loo gis taarix dafa am fu mu tàmbalee moo waral nag ñu fas yéene dem tey. fa lépp tàmbalee bu ñu fa yeggee moom Amadou Gakou loo gis rek ndoxteel li dafa am solo dañuy euh, dañuy ñëw léegi léegi jox ko kàddu gi mu wax ñu champ de course lu mu koy fàttali. fii amoon na ñetti terrain à l'entrée fële terrain central ak fii nga xamee ni moo nekk suñu kanam léegi moo ne woon deux deux troisième terrain bi te terrain central moo nekkoon ci digg bi. bu ko seqoon ak kii moom defoon na même course fas dañ ko fi daan def fii fii itam. surtout ñi football le matin moom tout le temps da ngay daw ba dégg jékki-jékki parce que ban la woon waaw. parce que li ko ceinture woon am na course fas léegi euh, classe yi nekk sa càmmoñ loolu moo fi nekkoon. même bu ngeen daan dem sax préparer di championnat yeeg yooyu yëpp seen préparation yëpp fi ngeen ko daan defee. yëpp fi lañ ko doon defee ak euh, dañu amoon ngeen daan dem di daw di def ay performance. waaw ñu la après nag ci def ba Mar Diop nga xam ni centre la. da ngay da nga la donc koy dër ba pare roose ko pour que samedi pour que dimanche nga mun cee daw loolu lañ doon def. fii ban anecdote nga ñu a nettali fii. fii euh, fii fii bu ma la mën a nettali mooy euh, fii la ñu naan football champion du Sénégal. champion d' aussi itam coupe d' Afrique fi lañ ko doon football ndax amoon kër gu nekk fii euh, waaw lañ daan dem ñu tëgg hymne yëpp ñun buurlekat yi. daaw mu ñu paas dañ daan bu ñuy tëgg hymne bi rek nga xam ne alkaati yi dañuy garde bu ñu daw dugg ci biir affaire bi seetaan en dehors de ça loolu moo ñu nekkoon suñu motivation ki coupe d'Afrique yeeg yi ñuy def yëpp nga xam ne nii euh, Africa Sport ñu woon nañu fi football a góor ak lool loolu lañ daan ñëw di seetaan daf ñu jaraloon lu nekk nag dañuy dem làqatu ci kër yi kër bii bi Ndiaye liñ ko daan wax mu ngi fii waaw alors dama bu rek vraiment suma xol jeex parce que fii waroon nañ ko sauvegarder ba nga xamee ni euh, kii la taarixu euh, sport Sénégal waaw incha allah waroon nañ ko mën a def. def defuñu ko patrimoine la mais comme def nañ ko nii nag ah yàlla na yàlla yokk sutura yi fekk nañu ñu ñaan yàlla rek lu ñu tal ba fekk fi mais vraiment surprise bu mag laa am fi ba nga xam ne ni xaw ma woon sax fu ma taxaw. lan moo dugal Père ah, pour pour rafetal dañ ma dàq. dàq ban bi. dañ ma waal yow da ngay nekk ailier doo centré yi duñ la jàpp dama gaawoon waaw. alors je crois que man la ñu xalaatee sax naan euh, défense en ligne pour nit ki nit ki mu nekk orto alors ñu yóbbu ñu ni ma léegi comme sama nijaay nekkoon Rési alors beneen nijaay bi nekk Gorée entraîneur ah, foofu kii góolu Gorée ñu ñuy ma demal Gorée man ma ñëw fekk leen ñuy def travail hivernal alors ndem si yàlla si Sago ndem si yàlla si Sayer seen boobu ba papay kii kii seen boobule bu nekkoon équipe nationale ah ma ñëw ñu ni ma daal léegi daal comme loolu sama nijaay ni ma léegi dama lay ñaan nga dem def ji athlétisme ma ne ah bon kii ma yóbbu stade Iba Mar Diop wane na ma section athlétisme Gorée ma toog trois semaines entraîné ko ñu ma daal lii de convaincre ma pour ma kii ñu ni looy def ma neen 100 mètres 200 loolu def alors benn góor bi ñuy wax Vieux David papa Ablaye Faye bi nekkoon conseil régional daal ni ma léegi léegi gis naa ni ñuy dawee léegi dama la bëgg a essayer 400 mètres premier essai bi ma daw avant l'indépendance ma tu tëb rek tukki bi ñu arrivé ñoom ñii di xool dañ doon yeeroonte seen biir ba ma raw leen ah fête de l'indépendance ñu ñëw ñu dem woo di nem si yàlla si Abdou Seye ñoom it Bernard Dibonda pour ñu ñëw xam ni Senghor moo ko daan présider alors bi ñu ñëwee bon ma daw ak ñoom bi ma ñëwee dama xëpp maa jël troisième derrière les ñu nga xam ni France lañ jóge alors ba ñu fekkee foofu ma tëdd ñu di ma ab si Abdou mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen ak ki nga xam ne moom ma entraîné Bernard Dibonda euh, léegi mu nga métti dañuy déggante tout le temps ñu ne ma de toute façon góorgóorlu de toute façon da nga nekk ci athlète boo xam ni ñëpp dinañu xam xarañ ci loolu laa duggee athlétisme waaw sinon euh, l'appétit vient en mangeant laa gi jël kii bi kii la parce que ñoom maa révolutionné 400 euh, mètres parce que dañu doon euh, weer rawante rek man ma ñëw rek. jeexalee waxtaan bi Sadou Iba Mar fii tamit monsieur Gare fu mu mel ni am nga fi jaar-jaar ndax mën nga ñu nettali tuuti ci sa jaar-jaar ci Stade Iba Mar waaw je crois fii laa jëkk commencé compétition. ñu doon daan entraîné cent deux cent lay def compétition compétition yi nag dimanche matin lañ ko daan def alors euh, bu ma ñëwee bokk athlétisme jógee section football ñu indi ma fii Gorée def naa deux semaines yoo xam ne bëgguma woon daw ñu persuadé ma ni ma foog daw waaw ndax lan parce que football moo ma neexoon alors man ma ne mun naa daw dans la mesure où may def cent deux cent ñu waaw ah amul problème champ 200 vitesse bâtard yooyu la 80 mètres 50 mètres compétition may raw rek alors mbenn góor gu baax mu ci dëgg maa ngi fen fet bi David papay Ablaye Faye ni ma léegi euh, dama bëggoon def ko nga def test 400 mètres pour que ñu boole la ci compétition yi ñëw dans la semaine ah, baax na fekk xam naa position yi gars yi daan jël pour daw dañ doon rawante rek comme fii da ngay daw chronomètre bi lay moo ci am solo nga moins de temps moins de d' espace waaw ah, temps booy def rek xam ni euh, corona baa ngi daw ah ma defuñu ma test defuñu ma dara ñu ne ko ñu boole ak ñoom ba xëy rek tukki fii boobu centre la woon xëy rek tukki je crois xam nga couloir trois xam nga couloir quatre nekkoon du ñu arrivé ñoom liñ doon yeeroonte bu ñu defee ba cent cinquante mètres yi ñu rawante accès man ma tukki rek ñëw. son sonnoon trop mooy photo boobu ngeen gisoon ma jonkoon nii def fi moo ma ñëwee ñu ñuy xuloo ci seen biir yaa ko bàyyi yaa ko bàyyi alors ma xam ni léegi man jàpp naa poj man par la mun naa wax ni ma révolutionné 400 mètres duñ daan rawante duñu def temps alors boobu ko indee itam avant les jeux euh, fête de l'indépendance dañ doon organiser athlétisme fii waa les quelques sénégalais yi nekk France woo leen fi ñu woo mun naa ci cité dem si yàlla ak Bernard Dibanda nga xam ne France lañ jógoon. William Pierre moom da doon def triple saut alors bu ñu ñëwee ñu ni ah yow Sénégal bi yaay la man leen waaw da man góorgóorlu naa leen raw de man ñëw daw xam. jël xam ban fii tam ban. ban ban la woon waaw moo tax dañ koy fii dañ koy dañ rullo arrosé ba mu kii fatt pax yëpp arrosé ko ba dër ko ba mu nekk ñu daal di soog a tracé pour mun daw entraînement aussi tam bu ñu defee deux jours trois jours ñu defaat la même chose xool ko pour que compétition bu nekk balaa ñëw rek ñu rulle ko alors tracé ko lépp alors bu nag ñoom ma jël troisième gis ma fekk mu tëdd ñu ne ma Abdou Seye ni ma ni ma ci dëgg ah, ah, ah. parce que dama amoon retenu dama doon def sama cettalaayu kàttan bon bu ma diree que peut jom la peut être euh, am na lu ma bàyyoon ndax saa yu ma solee mayu damay sóoraale sama koñ damay sóoraale sama famille damay sóoraale ñi nga xam ne xam nañ ma ñu ñoo ma fexe ba ma dugg athlétisme euh, foofu nag nag poussé dëgg parce que partie bu am solo la ci waxtaan bi muy starting block athlète bu ci sëkk balaa coup d'envoi bi départ bi. Hmm. tout se joue là waaw foofu lan moo war a nekk esprit sportif bi athlète bu sëkk ci bloc bi. Hmm. balaa ñuy joxe euh, coup d'envoi bi. Hmm. lan moo war a nekk mentalam. waaw bi lenn la c'est tellement facile bu am benn xalaatu àddina parce que sport soo ko bulee boolee xalaatu àddina rek doo dem fenn ñu mel ni comme liggéey aussi tam dooy dem di liggéey. nga nekk borom kër a amuloo dépense dooy liggéey foofu dara du fa dox su lépp ci sa xel boo ñëwee fii boo ñëwee toog bu benn nit ne diw rek man jàpp na ma dèjà dama lii daal kii yuuxu sama dir xaw ma ko xaw ma ko wala xam na ma danaa def ceeb du laay kattan pour li may def bu ma bu ci am bu mu ci am gàcce man du ma ci am gàcce parce que nit bu la wooloo nga def sa ceeb du laay kattan macha allah nga def na ko su dul noonu mu wax la ko mu bañ la ko wax dana ah am naa déception ci tel type moo def nangam ak nangam. mais am na ñoo xam ne dañuy tiit di tester plot bu ñu ne tëf rek des nañu. des nañu ay ay yoo xam ne moo leen def leen ay problème bi mooy mooy ci sama biir euh, entraînement sama entraîneur dama doon def loolu yoga. da ngay def position yoo xam ne day métti métti quand même tu respires relâché bàyyi sa yaram yoga bi loolu la ma doon jëriñ relâchement ku ma fi mosoon jàppanteel fii. 400 mètres ligne droite doo ma gis damay daw lu ma neexee relâché peut-être pratiquement bi peut-être ay 60 mètres à l'arrivée wala chose comme ça résistance bi xaw a manqué wala chose comme ça mais euh, loolu fii am naa fi ay xise boo xam ne lu ne def naa ko fi relais 4 fois 4 ñu ñëw foyer France Sénégal waa ji amoon na quinze mètres ci man ba may ba may nekk ci diggu village ba mu wonoon drapeau yi fële ci ginnaaw fa laa ko fekk. parce que xelam dal woon ci man parce que à chaque fois bu ñu daw 400 maa koy raw bon fa ko fekk progressivement bala ñu àgg 200 mètres yi romb naa ko bu yàgg te itam c'est très important pour euh, problème décalage premier couloir deuxième couloir troisième fexeel ba ki nekk sa kanam ñu réduire décalage am ki nekk sa ginnaaw am perte de temps pour xam ne mënul lu la mën a jot bu boobaa accélération boo munti def. mun nga ci génn. maanaam war a contrôler course bi. course bi da nga koy contrôler parce que fu mu ne ligne droite xam nga ngelaw li day ñëw. quels sont pour contrôler une course aux 400 mètres. ah xanaa nga nekk au milieu mais leen daanaa ko def un deux trois ba quatre su ma fa nekkee naa mais cinq six huit sept tukki rek boo ko defulee. nga xeeb sa bopp bu ñëwee ba ci virage bi da ngay gis nit ñi nekk sa kanam man loolu laa doon calculer man ñi ma nekk sama kanam bu ma nekkee bu ma départ dinaa leen lekk progressivement ba nga xam ne bu ma calculer bu ma ñëwee ci ligne droite bi dinaa leen jox deux mètres derrière moi loolu foog nga koy calculer waaye daw daw rek daw na comme sax itam mën na la indil problème. lan ngay euh, conseiller jeune génération bi fi nekk toujours damay descendre parce que tey 400 mètres plat moo ñu ñor. jeune génération bi ci nekk di daw 400 mètres plat gis nañ ci ñoo xam ne am nañu avenir. Ah. mais comme li ñuy wax rek. Ah. parfois tout se joue. Ah. ci course bi. départ bi. contrôle bi. dernière ligne droite bi. ou bien même les mètres. lan nga leen di conseil ci bu ñu toogee ci station bloc bi ñuy egsi ci ligne d'arrivée euh, loolu yëpp am na lu ko jiitu. lu ko jiitu mooy travail hivernal. xam nga boo jëlee benn entrepreneur mu jël maçon bi ni ko fii dama fa bëgg a def juróomi étage juróom benn étage ca fondation ba fondation booy dëgër moo la mun a permettre bu fekkee ne dix compétition ngay def da nga mën a tenir presque huit yi xëy na fan yi après Fatick bi dana ñëw mais boo dee ci fondation bi la travail hivernal bi yëpp la renforcement musculaire résistance vitesse lépp lépp lépp ci loolu nga koy liggéey endurance lépp lépp lépp ci yoon wa parce que euh, naturellement les gens sont endurants les gens ku nekk yàlla am na lu mu def ci yow rapidité endurance résistance mais yooyu ngay gis yëpp composante yooyu yëpp da koy travailler par fair ko pour mun a mun a mun dugg ci compétition mun a def sa def sa def camtalaay kattan bon ensuite ces gosses là soo leen gisee ñuy échauffé pour def compétition da ngay sidéré wu bu ma daan def échauffement daanaa def quarante cinq minutes quinze minutes course quinze minutes mouvement quinze minutes ay accélération progressive ah mel ni ku nar a rew waaw waaw non non dama koy dama koy dama koy dama def loolu yëpp ci sa parce que sa deuxième ñëw ji booy booy préparé en kii échauffement alors moo gën bon la laa remarqué nos petite catégorie la dañuy échauffé ba pare ñu toog leen ci suuf perdre bénéfice de leur échauffement baaxul te ñu ngi tàmm loo xam ni bés bu ñu demee coupe Jeux olympiques euh, euh, de la jeunesse bu ñu euh, adopté les mêmes choses bu boobaa la ñuy waaru seen borom parce que nii bu échauffé mu nekk en cent pour cent nga toogloo ko bu mu nekk en soixante pour cent bénéfice échauffement yam lay part bu ko matul lekk li ko ci mën a fekk mooy contracture musculaire wala leneen ak leneen ak leneen te aajowul ko bénéfice échauffement bu rawatina aussi tam soo dawee ba pare retour au calme entraînement retour au calme lépp ci kooku la wax mais insister nag nos gosses là sur le plan technique dawul tari fen la daw foo nga jàng ni ñuy dawee foo fooy teg sa tànk plante du pied déroulé jusqu'à la pointe des pieds pour mu ñëw dara. parce que dañuy seetlu ñoo xam ni. Euh, dañuy defe ni xëy ba entraînement la. parfois il y a des jours yoo xam ne peut-être euh, euh, il n'est pas au stade. Ah. mais on te demande de faire ce qu'on ah, ba suñu jonni tey maa ngi yeewu 5 heures du matin ba suñu jot day fu ma 10 heures fekk ma tëdd ñu suñu waa kër dañoo ah, bi de moom mu ngi dafay am looy maintenir yaa ko CAN Afrique ngay gis ancien sportif bu bàyyi ko totalement. li ñu doon tere yëpp nga def guddee tëdd wala dem seetaan yi jàng bëgg set wala def leneen ak leneen ak leneen doo def sax ay marche pour que quand même sa tànk parce que tëdd benn place malaat sax moomu ko malade moomul sax tëdd benn place léeg-léeg nga jóg doxantu sec may daw alors ñu doon xamal ne suñu entraîneur yi mu chaque personne ñëpp bala ngay xam ndax euh, euh, euh, kii nañu il marche normalement da ngay wut uh, kii sàmm sam sàmmkat yi ñooy ñooy dox jël seen jël seen bant def ni dox waaw parce que segment yi droite gauche ku coordonné wul gis nga ku coordonné boo ko defee mouvement nga xam ni kii coordonné wul parce que ñëpp kuy dox doomu aadama buy dox coordonné waaye boo waaw waaw ah, surtout surtout surtout moi loolu laa xaw ma daaw daaw jéeg xale yi bi ñu defee performance quarante cinq yooyu la man ñëwoon naa pour wax leen bi ñu war a def yàlla taxul bu boobaa taa je ne sais pas comment ça s'est passé man de de doon leen euh, jox leen rek la li ma jot a xam tuuti ci athlétisme xaw ma woon lépp waaye parce que bi may def performance yi may def bi may def le record du Sénégal bi à présent j'avais vingt huit ans j'étais au vingt huit ans coréen. waaw waaw waaw. léegi nag euh, bu loolu yëpp matalee. waaw ah, ah. maa ngi koy wax bu ah. parce que nga revenir ci entraînement bi. maintenant le la compétition en tant que telle quel doit être le mental d'un athlète. ga gagneur gagneur waaw. parce que nag dafay fekk nga liggéey derrière loo xam ne mën nga gagné loo xam ne doo découragé parce que nit ki su fekkee ne nekk na en forme xam na ko su nekkee en baisse de forme xam na ko su fekkee xam na lu muy mën a revenir quoi même pour pour kii parce que si hivernal day wax ne dinaa def tant de compétition loolu ngay sóoraale de long nga léegi wala fi danañ ko am danañ euh, kuy baxale ay ay ay xeer da nga da nga yéex a ñorle alors comme loolu la dangay def comme maçon travail hivernal mooy fondation bi. bu bàyyi dara manqué la. côté alimentation souvent dañuy dégg ay ci ñaxtu euh, Sénégal dafa métti léeg-léeg entraînement yu am na lu bool bool alimentaire dañ lay dañ lay jox ay ay indicatifs yoo xam ni certes mënuloo ko def mais dafa am yoo xam ne mën nga ko ci def tout ce qui est graisse à un certain moment donné da ko war a éviter bon mu des problème récupération nelaw. nelaw bu mu la jaral dara bon boo entraîné ba pare période boobu nga war a récupérer di dem di def leneen wala nga di def attaaya man daaw ma ko def. bañ naa ko ba sa sama kër la athlète yëpp daan kafe ba ñuy entraîné ci ngoon gi ñu ñëw entraîné daan suñu attaaya mais ay jàng ay beaucoup de choses yoo xam ni dinañ ko def daal période boo xam ne ko bon bu ma gisee nit ñi di tëgg sabar sax mu dem fu ma noppaloo bu baax su suñu tasee ma ñëw tëdd nelaw sama nelaw waaw moom c'est primordial la récupération ak loo munti def ci àddina parce que boo lekkee boo boo boo boo boo digéré boo doo mun a lekkaat lekk bi su ma ko bu ma koy déglu mooy entraînement bi boo entraîné somme de travail boobu nga def ngay essayer capitaliser récupérer en conséquence le permet nga defaat les mêmes ah. euh, defal est que l'athlétisme a nourri son ku mel ni ah, loolu nag passé nañu foofu man athlétisme su ma leen doon ñaan léegi la petite catégorie ñu dimbale leen lu amoon na ci fond bi doon toppatoo athlétisme ñu delloo siwaat ko ci Amadou Gakou moom problème moom lépp mooy la petite catégorie la avancé moom je temps am jeexal na j'ai quatre macha allah yal yàlla xeb dool yi te yàlla bu mu ump kenn yàlla bu mu leen ump mais bu ñu doon toppatoo nañu topp la petite la petite kàddu man suma wàllu jeex na amatu may naan bu ma doon ñaan itam gouvernement dama leen di ñaan que ñu suqalee athlétisme bi man kiyatuma. mais est ce que gëdd gi la waroon jox ci say jamono gëdd googu joxoon nañ la ko. ah gëddu Sénégal kat mooy soyez honoré vous qui avez honoré la nation <laughs> wala wala. loolu loolu la ñu war a def en tant que tel gë gëm na ni li ñu doon def day itam dara mënuñu dara mënuñu ci woon di nii parce que dañ ko gëmoon. ensuite léegi comme loolu yëpp passé na ñun on tend vers euh, euh, des jeux de de de la jeunesse dañuy demander à ce que ñu toppatoo leen man la personne de Amadou Gakou c'est-à-dire ñi nga xam ni xam nañ ma di may may dimbalee xatnet yi nga xam ne ni pour dem ci kanam la. loolu moom moo gën a soxal li na moom boo comme duñ koy wax sax temps jeex na mais gis nga yàlla moo yore jotu ñépp yàlla moo yore duwu ñëpp mooy joxal ñépp waaw mooy sàq ñépp ñu li nga war a am ala kulli alin philosophie boobu laam da koy am. sa réew bokk na allah bu doon sama sago suba suba ñu baat ko bu boobaa damay def lu ma am bu boobaa lu am dinaa ko jox ki nga xam ne mooy baat record te ñaan naa. ki ko rek ki koy def yàlla buñ ko jonte jonkonteloo li nga xam ne jonte ko naa parce que man mun naa muñ xale yi muñu muñ su bu ñu defee ferronnement mi alors en grosso modo ñu dégg Amadou Gakou baatu na record yëpp aux Jeux olympiques de de Mexico cent mille francs waxoon ko chaque fois bu ma baatee record vingt cinq mille francs laa doon am en tout quatre record quatre fois yi ma daw yëpp muy cent mille francs yàlla sant ci yàlla bon ma dem ba fexe ba nekk entraîneur yor ay nit boo xam ne ñi ngi defal ci man defar sama kër macha allah yal yàlla xeeb doole. te damay ñaan aussi tam yàlla yàlla may leen ñi nga xame ni yàlla dimbale leen ñu nekk dans l'athlétisme yàlla may leen kattan doole yoo xam ni yéen tam à votre niveau seen ceeb lay kattan yéen ñi koy def waaw léegi góor laa leen di wax di leen jaajëfal di wax. kii c'est une première de dafay peloo 54 ans ñëpp bëri jaar nañ fi mais tey circuit bi ñu def ma man sama wàll boobu kontaan naa ci trop trop ànd ak Sori Sangaré ah yàlla defal ñu sutura koo xam ni moo doon def athlétisme ñëw gérer affaire bi di ko la nga xam ni xam na lépp xam na euh, ci problème yi ñuy jànkuwanteel mës na pratiquer loolu la ñu soxla ci Sénégal. Euh, cri looy lancé lu yitteel dëgg dëgg loo xam ne tey yàgg na nekk moom laa di bëgg a dégg ngir tëjee ko bu doon sama sago bu doon sama sago sport yi wax yëpp te Sénégal dafa nekkoon ci kanam yàlla delluwaat ko ci kanamu ñëpp ci barkeen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laay ñaan ci cri de bi daal mooy que ñi ci nekk ak ñi ci bëgg a dugg yal leen yàlla jàppale ba ñuy yëkkatiwaat athlétisme bu fu gën a kawe suñu njort ñu fekkee tal soit ñu fekkee ñu bañ a fekkee euh, fu mu ñu mun a fekk daal dañuy ànd ak xol bu sedd guy que ni athlétisme di ñëwaat na fu mu nekkoon macha allah. jërëjëf Amadou Gakou ñu nekkoon ak moom doyen gàkku wax nañ ko ku ne xam na ko yaakaar naa tey euh, ñu bari bu amee lu ñu umpale woon ci moom xam nañu ko Amadou Gakou athlète ancien athlète recordman du Sénégal au 400 euh, plat avec 45 euh, secondes 01 ci atum 1968 wax naa ko ci la ko baatroon euh, ca Mexico mu nekk nag lu am solo tey wax nañu biiram wax ñu biteem ci wàllu athlétisme ñu koy ñaanal nag gudd fan ak wér juróom-ñett fukki at la am record bi am na juróom fukki at ak juróom ba nëgë ni kenn baatara gu ko yéeneem nag mooy génération bi fi ne ñu baat record bi yéeneem mooy kilifay réew mi ñu gën a jox gëdd athlétisme ndax génération bi mi ngi fi am nañu yaakaar ci ñoom ci kaw ñu gunge leen ci bi ñuy doon tuuti tànk def ci ñoom loo xamante ni mooy tax ëllëg tey xëy na yenn record yi ñu mën ko baat fii nag la ñuy tàggatoo ak yéen ak icône bii ñu leen indiloon muy ku mag ci Sénégal dig leen daje ci beneen numéro ak koo xamante ne tamit beneen icône lay doon ci Sénégal ku ñëpp ràññee. ñu leen di jëfal di jaajëfal ñi ma gunge woon eh, ci liggéey bi boobu ba tey muy équipe bu am solo Père Gakou ca kaw ca kanam ñu lay ñaanal gudd fan ak wér ak yéene bi nga xamante ni moom nga am ci athlétisme ci Sénégal yàlla na ko sunu borom matale jërë ngeen jëf ba beneen yoon